donc affilié à la société Safinatul Aman, qui est une société fédératrice de GIE au niveau du Sénégal, évoluant sur le domaine de la télédistribution par câble. waaw di di nuyu waa Leral TV nos fidèles partenaires aussi di nuyu aussi tous les téléspectateurs de cette chaîne euh, et tous les Thiessois en particulier aussi jaajëf di nuy aussi tous les collègues câble distributeurs du Sénégal. alors est-ce que mun nga ñu wax un peu rek naka la seen liggéey di di demee ci wàllum li nga xam ne moo di réseau câblage. réseau câblage moom euh, du lenn lul euh, la distribution de chaînes de télévision dans les foyers par le câble via le câble donc loolu la ñu nekk des jeunes sénégalais dynamiques euh, qui ont su qui ont vu que. nit yi dañu soxla seetaan télé à moindre coût ak un service de proximité ñu lancé wu donc sur ce domaine depuis maintenant euh, plus d'une dizaine d'années di ci góorgóorlu bon di formaliser wu fu fu ñu gis bunt pour mën a exercer ñu nekk ci fu ñu gis aussi technologie bu mën a permettre ñu yokk seen qualité de service ñu nekk ci ko donc euh, am une très bonne organisation euh, sunu organisation c'est simple dañuy am toujours un dispositif boo xam ni mooy redistribuer léegi on redistribue via le câble donc mu jaar ci le câblage aérien egg ba ci kër yi wàcc ñuy am image yi en analogique e un peu même en numérique maintenant parce que le transport ñu ngi yegg ñu ngi ci mutation vers le numérique aussi ba alors sànq yaa ngi koy wax ci sa biir kàddu yéen a ngi en partenariat avec Leral TV Leral TV ku xam jamono juñ toll nii ku kuy faral di seetaan euh, les télévisions gis na ne mu ngi def benn montée en filigrane bu am solo alors tey ji présence sur Leral TV ci réseau câblage yi ak yéen aussi tey ji euh, naka la ko nit ñi accueillir ci li nga xam ne moo di réseau câblage yi. je vois je sais que ni d'habitude euh, le réseau câblé c'est tellement bien suivi que. même bu dul leeral sax am na yeneen autre euh, IPTV yu ñuy liggéeyal mais mention spéciale à leeral parce que aussi ñoom ils ont su gis nañu ñun ni ñu ni ñu doon ñu gëm ñu ñu jaar par ñun d'abord mu noon mu donc benn palier bi nga xam ni jaar ci ñun pour mën a vulgariser la cette chaîne là donc euh, mu nekk partenariat boo xam ni bu bu sérieux bu sincère et puis ñu xam ni aussi leeral c'est des jeunes sénégalais bu am vision. ils ont une vision ils ont vu que ni ñoom dañu war a vulgariser seen chaîne ils ont vu que aussi le câblage est partout. dafa am percée bu grave donc ñu ànd di liggéey ñu gis ne aussi chaîne chaîne boobu nga xam ni 100 pour cent information franchement les les les gens l'apprécient et le suivent waaw. au naka ngeen naka ngeen gisee Leral TV. après les émissions yi nga xam ni bi ñu commencé di teg leeral y a eu des normalement ci yéen parce que des clients ki appellent de Thiès ou d'un peu partout pour montrer que ni rek war na leen kon que ni cette chaîne là mi ngi mi ngi dox à Thiès et puis nit yaa ngi koy suivre donc correctement donc mu doon une chaîne boo xam ni parmi les chaînes phares yu chaîne sénégalaise yi te pourtant bi mu juddoo yàggul mais mi ngi def son son son bout de chemin di dem ci kanam daal. voilà alors tey jii benn message booy lancé envers ñi nga xam ne moo di euh, le agents de Leral TV en tout cas le personnel de manière générale. waaw xanaa di wax rek un peu euh, bu ñu bu ñu teggi seen tànk ensuite euh, lu ñu mën rek benn nañ ko def ensuite nañu nañu fàtte toujours fi ñu jógee ak fi ñu jëm bëgg xam mën a xalaat fi ñu jëm ensuite xam ni le réseau câblé bokk ci ñoom. ñoom ñu bokk si ñun donc c'est pour man saa yu ñuy dox di yem ci kanam nañuy fàttaliku waale aussi ñun euh, fi ñu jaar ak ñoom parce que xëy na noonu mooy mën a tax cette ce partenariat là mën a mën a continuer di am parce que dañu nekk ñun tamit si benn domaine ñoom ñu ngi si beneen domaine ñun ñu leen di héberger en quelque sorte ñu leen ñun en fait on est le fil conducteur mais ñu am na ay affaire am na yu bëri lu ñu dese ci suñu organisation am na yu bëri yu ñu dese aussi ci technologiquement parlant te ñu ngi ci aussi mu leer ñu ni donc ñun tamit on va vers des mutations et dans ces mutations là on aura besoin de Leral TV et tant d'autres télévisions yoo xam ne qui vont nous accompagner sur ça voilà di leen remercier ci seen le fait vraiment pris votre temps déplacé wu ça montre que vous développement donc li ngeen di def nii ça montre que vous êtes vous cherchez un service de proximité et c'est important donc di leen jaajëfal di leen ziar di remercier aussi toute l'équipe de Leral euh, à travers leur DG.